الدم منسل الدنا والدائم ومنسل السفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من ثم استثمرت يبرأ بلا بد وفاز بالخرج محمد طبيبنا الحكيم عسكى سلام ربنا الكريم والآل والصحب سوي العلاء محتاج سوء أسقى من الصفاء هذا وإن اليوم سوء أوجاعي مبتقيا عون المجيب داعي واسكي إليهما من الدرر هل مسني عتى أراني مهتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاهدرنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم بيمن رمضان العصمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا وسيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم إيمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر نعم وهب لنا الآداب والمسايا وكفنا الآفات والرسايا وهب لنا الحرص على التوات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر ولا يا سافي أنزل صفات مكان داير ولا تعاملنا فمكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم وعافهم والتبهم ولا تواقسهم بكسر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لجوف يسهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلصص الجوارح أبداهم لأفضل الخبائث فلا تواقص بما لا ينقصك ولهم بالذي لا ينفعون asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bi ñaanal bu baax Serigne Mountakha Mbacké sama borom jàggal ko fi yàgg ci ginnaawam ñu ngi sant yàlla bu baax ci béréb bii nga xam ne ni dañ fee tabbi nii fan di Bichri Leye Bichri Leye nag boo ko déggee ñu ngi ci diggante Sine tumb ak Makassar ak it ak Timor Féré yooyu nekk ci dig bu am solo di Bichri Leye di dëkk boo xam ne si ni ah, dëkk boo xam ne ni maanaam dëkk buy jëmmal nga la ñu ñaan yàlla sunu borom defal ñu jàmm ngeen ànd ak seen télévision euh, Assalaamy TV Télé TV léegi nag Modou Gueye dañoo ñëw fii ci Bichri Leye fekk la ci waañ bi biñ la fekkee ci waañ bi waañ waañu doon waañ woo xam si ni waañu mag la te li wér te wér mooy mën naa ni depuis ca nag ya ba ci ndugg mi ba ci soxna yi kenn ku ci nekk am nga loo ma ci mën a wax te xam nga loo ci loo ah, ci mën a wax ñu lay laaj euh, liggéey bi nan la demee agit it fan la commencé ak nan la demee ci wàllu liggéey bi nga xam si ni maanaam moo jëm ci bisoro la ci ah, seen bis bu mag bi waaw xanaa santaat sëriñ bi sëriñ bi ñu yar rek la ñu ba sunum xel delluwaat ci maam yi ndax gone buy xelam delluwaatee ci maam rek yàlla mën naa defale mbiram di nuyu doomi Bichri yëpp ndax lii doomi Bichri def maam dafa doon mbir moo xam ni fàttaliku cosaan la te ndaw fu ma nekk bu dee fàttaliku cosaanam rek mooy gàllaajam ndaxte ñun dëkk bi dafa doon dëkk boo xam ne ci ñun dafa def ñun ak mat def ñun fulla ak fayda doon dëkk boo xay ñun ci ñun fu maa dem bu ñu dee xalaat doomu dëkk bi fu maa dem dañuy naw ndax dëkk la boo xam ni macha allah te suñu maam ba fii ñu toll jom rek mas a nekk ci ñoom. kon ñu ngi sant doy bu suré bi programme lii ngir lan bañ a fàtte suñu cosaan. loolu bi toppaan mooy wàllu waañ bi nekk nii waañ bi tamit nekk na waañ boo xam ni ñi fi daje ñëpp benn bopp lan comme ni maam yi melan rek moo dikkaat ba ci waañ bi benn bopp rek moo fi nekk. waa Kër Mor Thiam waa Màkk Sar waa Sine Makumba fin bi la suñu maam doon dund ba léegi kenn disut ñëpp ngi ci waañ bi di ñu jàppale kon doomu Bichri ñu ngi leen di santaat di leen gërëmaat di gërëmaat comme ni ma ko wax rek ilimaat ak ñi mu àndal ci taxawaayam bu rafet yéen ñu suñuy mag tamit grand Fallou Mbaye grand Modou Mbaye yooyu tamit gàcce ngàllaama ba léegi fii ñu tegen tamit ñu ngi fas yéene tegu ngir daal jëm sëriñ bi fii daal amuñu benn problème wax dëgg yàlla amuñu fi benn problème waaw ah, kon dégg ngeen kaddu yu am solo yooyu di tukkee ci jëmm ji nga xam si ni mooy Modou Gueye taxawaayam rafet lool nag ci bis bi ci fii ci Bichri Laye kon fas noonu lañ fas yéene ànd ak yéen ci bis bi nga xam si ni mooy bisu Bichri Laye di bis boo xam ne bis bu mag la bis boo xam bu amee ren bala moo amati déwén yàlla na ci yàlla sàmm yóbbati waat ak jàmm ci barkeb Serigne Touba am na nag soxna soo xam si ni incha allah wares na koo jël dégg naa ñu ne indi na fi teranga joo xam si ni teranga joo am solo la waaye nag li wér ci wér mooy li olof Njaay naan xandeer bu tàbbee ci géej cikkul da caa ñibbi loolu mooy dëgg kon dañuy jugaat rek ànd ak sama bokk yi ñu jóg doxantu ci dëkk bi am yenn mag yoo xam ne taatan eh, seen kàddu ci cosaanul lenn ci dëkk bi. ñu ngi wéyal liggéey bi eh, maa ngi feggoo nii ak soxna Yacine Lay eh, di kenn ci njabootu Boussirou Lay ñu dëkk ko micro mu wax lenn ci li mu xam. ci cosaanu Boussirou Leye ak it bisu Boussirou Leye ak rawatina nañu fekk ko fii ci waañ wi ak xiiwal yi nga xamante ni indi nañ ko fi te nag bu nuy wax togg dañ cee wax bool ndax ku wax bool tudd togg waaye ku tudd togg tudd bool kon bu ngeen indee teranga yi tol noonu wax dëgg yàlla euh, am na solo lool te jar naa yëkkati kàddu muy sant goo xam ne wax dëgg yàlla ñi ñëpp ci seen xol koy tibbee ah mu tasaare ko ci doomu aadama yi kon soxna si euh, dañ lay laaj lenn ci euh, bis bisu Relais bi ak teranga ngeen fi indi lan moo tax ngeen def loolu yi. salaamaaleykum wa rahmatulah. nuyu naa ñëpp ziar leen baalu leen ak baal leen di ñaan sa borom mu boole ñu jéggal di leen wax ni bis bi day bis boo xam ne macha allah waxuma la ku dëkk bu sura waaye jullit bu ko dégg te bëgg lu baax rek war nga cee jéem a war a jéem a fësal sa bopp ngir ëllëg tuyaaba ji kenn bañ la cee ëppale ndax jokk bokk lañ wax jokk bokk nag suñ borom a digle ku jokk ma jokk la ku dog ma dog la kon foor na lool ci yàlla bu xale yi jógee nag de jël initiative bu toll nii di ko def mag ñi fekk si leen ci jàppale leen ci te gone yee ci war a gën a góorgóorlu nag ndax ñoom ñoo ciy gañee ndax mag ñi xëy na seen kàttan bëreetul seen mën-mën bëreetul dañ leen gunge rek te gunge bi benn temps lay am mu ñu dem bàyyi gone yi kon gone yi nañ góorgóorlu xam li ñu moo li ñu yore ñu téye ko bu baax li ma ci am comme soññee nag mooy soññ suñu bokk soxna yi ndax amul benn góor bu mën a dem sans jigéen góor ñi mën nañoo jéem tële waaye jigéen lu mu jéem bu ca dogoo suñ borom fekk ko ci loolu yàlla moo ñu ko defal kon nag nañ góorlu ci liggéey bi te xam ne bu dee 100 nañ jigéen ñi jàpp ne 90 yi ñoom la war waxteef gi nag mooy dëkk bu toll ni bu Soureleye dañoo waratul soxla dara di ko abbi mbaa ñu koy ñaani mbaa ñu koy luye ji ndax doomu bépp doomu bu Soureleye fenn fu mu nekk bu yëkkatee juróom def ko ci liggéey bii rek bu taxawee ci dëkk bi dinañ xam ne doomu bu Soureleye yëngatu na kon nag bu fekkente ne dañoo jël liggéey bu toll nii fas yéene at mu jot di ko def ba bàyyee ko suñuy sët war nañoo fonde loo xamante ne nii bu ëllëgee xale yi ñëwaat du ñu am boobu jafe-jafe maanaam lépp loo xam ne jëm na ci matériel jëm si ci dëkk bi dëkk bi war nañoo fexe ba seenu njaboot bu ëllëgee duñ ko ab bi duñ ko duñ ko lebi duñ ko luyee ji loolu nag ñun ñu toll ci génération bi ñoo leen ci mën a jàppalee ubbi woon nañ fi benn kee sociale daaw ni woon kenn ku nekk sos nañ la téeméeri dërëm par weer at mi doon junni ak ñaar téeméer yomb na yàlla suñu borom te buñ ci dogoo def ko ndax natt yi dañ koy natt dañuy dem ci ndey dikke yi dañuy dem ci mbootaay yi te liñ ci war dañ ciy def jigéen joo fi ndayalee doom ne ko am na doom 15 jours dina lijjanti ba lu mu gàtt gàtt dina baatare 50 000. boo génnee ñu ne la toj nga fi tojoo na tax 50 000 yooyu jëmut fenn dañ koy coow mu ànd ak poussière bi dem. soo moytuwut sax di nga ci am ay daan. soo moytuwut 50 000 yooyu di nga ci am ay daan ndaxte da ngaa laaj borom kër bi laaj sa ndiyaay laaj sa keneen laaj sa keneen te lañ la joxoon xaj na ci dépense wala mu xaj ci éducation xale yi. ñu préféré nag ñun jigéen ñi di puukare ka def farata dañoo bëgg nag bàyyi puukare bi tey def farata kenn ku ci ne téeméeri dërëm parweer weer la ndax dinañ natt natt yi ni ma ko waxee dinañ fexe tontine yi kenn du leen ci mën kon nañ fexe ba liggéey bi ñu bañ leen cee mën na gis nga nit li muy liggéey tey bu mu yaakaar ne day sotti tey mu jariñoo ko tey mag ñi fi bàyyi lii boo leen fëggoon ne leen dëkk bi mel na nii duñ ko gëm ndax ñoom lal bu ñu tëdd sax lalu taxas la daan doon ñu teg ca pajaas te tey double lii yaa ngi ci dëkk bi ak six battant yi dëgg la kon loola mag ña ñoo ko sàkku woon ñun nañu fexe ba ndaw ñuy ñëwaat ëllëg suñu doom yeeg suñu sët yi ñu sàkkul leen loo xamante ne nii buñ ñëwee dañu xam ne kat suñu maam ak suñu ndey yi fi jaaroon ak suñuy baay am na luñ fi bàyyi kon nag jigéen ñi nañ góorgóorlu bu baax ci li nga xam ne moo yitteel dëkk bi ndax gis nga bool warul góor jigéen la war ndax lay dem ci bool jigéen a koy def te bool bu baax jigéen a xam fa muy jaayee kon sàkkuwaat naa ci jigéen ñi ci dëkk bi yëpp ñu gën a góorlu ci matériel bi nga xam ne moom la ñuy soxla fii ndax tur yi nga xam ne ñoo dugg ci Sylatour yëpp di doomu dëkk bi dama ne la kenn ku ne bu ñu joxoon ñaar fukk par weer at mi bu jotee lépp ñu soxla ci matériel dinañ ko jënd indi ko fi comme yàlla dogal na nag daanu daju suuf ba doomu dëkk bi yëpp mënoo leen am jot la ñi nga xam ne ñoom ngeen jot a pus néew seen tournée fi nañu góorgóorlu ci participation yi ñu leen di laaj ñu def ci fulla ak farata ndax gis nga ndab lii nga jënd teg ko ci ëtt bi te moomale woo ko kenn def ko bi sabilillah ñu ciy togg di ci yàq na nga xam ne bu la fekkoon ci biir bàmmeel sax ku ci jëfandikoo sa tuyaaba fekk la fa nga tëdd oh, kon loolu dawal bu yiw la kon kenn ku nekk na nga ci def la nga man man moom ma bool yi samba moomu ko keneen moomu ko dëkk bi la ñu wax si la turayim ñoo moom matériel bi képp ko ci def sa dërëm nag doo ko réccu ndax dawal bu yiw la rek boo demee sa fekk fa boo ëllëgee ndab la ko soxla di ci liggéey tuyaaba ja fekk la fa nga jëm te bis bu ne nag ñu jël junni def ko ci loo xam ne ay daan doo ñu ci fekk kon nañ góorgóorlu bu baax ci liggéey bi di ñaanal xale yi bu baax nag di ñaan sa mu sàmm leen may leen wér gu ànd ak wérle yàlla yokk seen wërsëg ndax xale yi bu ñu amee dara rek bu sura avancé xale yu góor yi ma gis hmm. wóor na Sëriñ Tuubaa bu ñu doonee millionnaire rek bu sura doon pale dëgg la de ndax ñoom noonu lañ ko bëggee xam nga nit boo bëggee sa juddu fonk sa cosaan loo am di nga ko ca def ñoom da bëgg nañ seen juddu te fonk nañ dëkk bii ñu jógee ndax boo gisee ñu fiy tabax xam ni fii lañ dëkk te fii lañ bokk fii lañ moom li ñu am ñi di ko ci def ay góor lañ nag jigéen ñi ci kër yi ñoo leen mën a jàppale man nañoo tabax kër gi ba mu baax def ci matériel mais li jagal kër gi jigéen ñi la kon jigéen ñi nañ góorlu ci liggéey ba xam ne kenn jëkku leen ci bu ñaan yàlla kenn mujj leen ci yàlla ñu yàlla defal déggu ànd ak topp defal ñu taw tawfeex yu ànd ak tey si defal leen jaami saadatu daare ni bu sura daal mooy ngeen gi dëkk